Bantamba xam naa ni dina ni demati nañu feneen feneen fi nu dem yéen a ko moom feneen fi nu ne ci li nu foog ni war na mën a tax làmb jëm ci kanam fi la nu ne mbokk yi fii ngeen di gis bu yàggul ñëwoon nañ fi booba dara newu fi ñu waxtaan fi dellu siwaat fi président de la république teg fi mool bu njëkk bi tey ji ñu ñëwaat ngir xool fan la liggéey bi toll arène nationale bi fii ñu taxaw nii xam naa ni mooy géew bi xaw ma kan moo fi jëkk a daanu ci yéen ñooñu di mbëri ak kan moo fi jëkk am ndam ci yéen ñooñu di mbër yi mbër yi dañ leen di ñëw fii ak amateurs yeeg Sénégal ngir xool fii nga xamante ni ni dëgg la tudde nañ ko arène national waaye discipline sportive yëpp moo fi am ci kàddu yi nga xam moom la président waxoon mbokk yi liggéey bi ak ni muy doxee yaakaar naa ni weddi gis bokk ci lii bokk na ci li nga xam ne ay dige la woon te mën cee teg loxo ndaxte liggéey la buy dem Bantamba tey fii lañ ko fas yéenee defe waaye du tee ñu waxtaan du tee ñu dem ci làmb dinañ dem stade Iba Mar Diop ndaxte Mor Ndiaye ma fa woote woo nag la mu fa woote. mbokk yi dinañ waxtaan ak kan Balla Gaye bu soobee yàlla numéro 2 waxtaan ak moom ci làmb mbokk yi tey Bantamba loolu li waral ñu ñëw fii nag mooy xool. lan nu diggoon anamu li nu diggoon nag mi ngi nii ah ñu ci encouragé encore le ministre Makhtar Ba ministre des sports di féliciter basketteurs yi di félicité lions yi di féliciter ñëpp ñuy yëngu ci wàllu sport ñu leen di fàttali ñu ngi kon sunu xel mën naa dem ci Baba Touré ndaxte bu soobee yàlla la 15 ah njabootam ak ancien footballeur yëpp war na noo daje ci stade Demba Diop ci suba gi. mu doon bisu samedi ñu ñaanal ko ñaanal bépp football kat sportif bu fi bàyyeekoo ñu ñaanal leen foofa la ñaan gi ah ñuy ñaan le ministre des sports le président de la fédération ah ñi yore comité olympique ñëpp war faa teew ak amateur football yi maanaam les supporters ak dirigeants yi dirigeant football yëpp génération de 60 à nos jours ñooñu ñëpp woon nañ leen fa le 15 la ci suba gi ñu ñaanal ñi nga xam ne ñu ak ñoom a daan ànd ci wàllu football te nekkatun fi kon mbokk yi loolu buñ ko fàtte mbokk yi li ñuy def mooy dañuy dem fa nga xamante ne nii moo di stade ba Mar Diop ñu xool la fa xew lan moo fa am ci làmb Booy lan ngeen kan ngeen wax sox sox sox sox. dëgërël dëgërël météo bu kilomètre 10 000 problème la 10 000 problème. parce que dañ koy jàpp du ma ko daan sox réel lañ wax. wàkki ndaw lañ wax wàkki ndaw wàkki ndaw. moo nge moo nge mu weex mook 10 000 mook 10 000 dooki moo nge moo nge bu weex bi 10 000 10 000 jël na dooki dooki bañ na ma ngay daw waa dafa mel ni dooki mënatul bëri ah asafur laa 10 dafa mel ni mënta mënta bëre waaw jox na nu dooki ndam li ndaxte Rocky gaañu na daw na mënatul daal. waaye eh yow yaay dooki. man maa la dooki sama papa moo waxoon moo ma bëri daf may génnee kër gi. béykat yi laa moom laa bëgg. làmb ji jëluma kenn wóor saa may ndax dafa sonn si man mu génn àdduna maa ngi koy may maa ngi sant grand papa bu baax a baax maa ngi sant grand Youssou. moo jàpp si góom sa papa mu ne lan. daf may génne si kër gi man bu ma daan woon damay dem mais comme daan naa na ma dimbali ngir yàlla. mais sama sens mu dugg si kër gi moom laa xam moom laa miin moom moo ma yar na ma dimbali te yàlla tax pour dugal ma ci këram maa ngi sant dooki eh dooki eh, baalal booy bi waaye waaye maa ngi booy bi sama fils la waaw loolu dafa maa ngi sant ñëpp ñëpp ki jàpp si combat su ma yow moom nga tudde sa bopp moom laa tudde sama bopp moom sama fi wala waaw gëj naa fi gars yi dañoo meroona ah. waaw waaw mais dañoo meroon mais incha allah xale juum ñaari yoon waaw damay wax soxu muuri yëpp jël na avance ke jël na avance tey lay mi boree waaw waa Guèye ñëpp jàppale ñu père. waaw ñëpp nag noo tudd. Mbaye Tine 2. nañu gars yi jël ba gars yi nañu gars yi jël. non gars yi ñoo ñu ragal barki saison. man maa ngi bis saison bi mais gars dañ maa war a jël taal ba Seydou Modou Guèye ngi nii Malick Gakou. waaw bëri naa fan mais gars nañ ma jël. non gëj maa bëri mais dama bëggoon di bëri chaque dimanche. nama nan la yow. non maa leen raw maa leen raw. ah jar naa laaj foo nekkoon ne maa ngi fi maa ngi fi. naa ko combat rek mais maa ngi fi. Fallaye gars yi ñu ne dañ laa waaw maa leen raw père barki maa leen raw. loo indil. lu garaaw laa leen indil. ci kanam rek dinañ comprendre lu indil. waaw waaw ndax dama gëj ci làmb. dama war a ñëw leer. maa ngi sant yàlla léegi Sarr nga. waaw ba tey Sarr Sarr amul yi ñoo war a ñëw gars yi ñu bëre. Zarko dañoo ñu bëre père. Zarko moom meeku chance. Zarko Zarko dumbul ñoo ñu meewee chance. appliqué moo ngemb boo bu violet bi. booy séeréer moo nekk seen booy séeréer amoon nafi fi taximaan la woon bu daan dawal bu amee combat day ñëw indi taxi bi nafi ba ci buntu arène bi mu gaare indi ñaari bitéelam sottee ko benn bi bi ci mu diwu ko bu arbitre bi sifflé mu yenu la ba ci kaw dóor ci suuf te moo lay ba pare continuer demaat te booy séeréer boobu moo la daan daan mooy daan booy séeréer oh appliqué daanu nga eh bu ko dóor yow ah yow daan nga ba pare kay tay yow xeex nga waaye dóoroo yow da ngaa ba daan bul bul indi problème. gis nga amateurs yi nag danoo xam ay combat yu neex am na combat yi ni muy demee amateurs yi dañuy ñëw ci làmb xam nga Falaye Baldé 2 Sok Pambaay ah nee te Ndéko Réel dañ ko namm. barke Serigne Babacar Sy yaa koy daan billahi yaa koy daan jàppal yaa koy daan jàppal dugal nga bëre séeréer séeréer nga bëre séeréer séeréer yow damay wax waxal damay wax mais lan moo tax ñu àtte lan la ah les arbitres yi wax rek arbitre lu arbitre yi wax. Bécaye Mbaye yow gis nga arbitre yi ñooy maître. wax ñu ah, man mënu wax de. Eh, lan moo tax gars yi bi sifflé na nee nañ ko daanoo ko. mais au vraiment daan na ko. waa léegi nag man affaire bi daf maa jaaxal léegi nag. booy séeréer ñëwaat na ak appliqué ñoom ñaar ñu ngi léewtoowaat un vraiment compliqué. man musuma gis lu mel ni daan la ba pare ñu ne daanu la te bi moo sifflé ni daan na ko ba pare mu indiwaat leen jël na ko appliqué jël na tànk booy séeréer bañ na. li ma ci jaaxal arbitre bi moo ko teg ci kaw appliqué te nee na daanu ko kon léegi lan la ñu bëgg xanaa dañ ko bëgg a mayaat chance. seen combat yàgg na parce booy séeréer dafa daañ appliqué arbitre bi ni jël bi baaxul te joxe woon na verdict ba mbot la mbot la e appliqué daanu kaat na ab daanaat na ko waaye da ngaa sonn waaye yow daan na ko ba sonn. Wow. yaay mërgale yaay mërgale yaay bu guddee booy banaan mbëndu sama xarit la wax ci combat tey ah ki ma baa nga yëri deux yëri non kii. làmb sa ñaata combat. jiite. association eh, eh. nationale des inspecteurs de la jeunesse et des sports à la retraite. ngeen war am xew kañ. waaw ñun dañoo war a am euh, benn manifestation bu ñuy organiser dimanche prochain. le 2 avril. fii ci stadium euh, Iba Mar bëgg organiser benn gala de lutte sans frappe. at bu nekk dañ koy def. ñu tuddee ko journée du souvenir. alors journée du souvenir yooyu nag dafa am lamb lamb ji nag moom lañuy ñuy def le dimanche 2 avril tuddee ko Mamadou Racine si nag fan yi dama nekk ci préparation fiara bi euh, àllarba lay ubbi waaw du ci invité sénégalais yëpp bu ñu jógee ci loolu nag xam nga ñu ngi waaj le 16 avril diggante Bébé Diouldé ak Birahim Junior muy drapeau amical des vétérans Parcelles Assainies ak vétéran wu Cambérène ñu pare foofu nag jublu ci liggéeyu Modou Lo ak Lac de Guiers bu neexee yàlla mois de juillet. te Paco chaque dimanche ñu gis sol ci làmb bi lan la yow sa mbër bu bëriwul sax da ngay ñëw. non et puis kenn xàmmeewul sa mbër. non man sok euh, kii sok sok laa ñëw soka ma fi indi. yow kon dimanche bu jot am nga koo faral. non sok sama boy la nag sok jët lii bigin moom xam nga moo bëgg a bigin. lii yëpp ay cumikaay la. xoola ba fond ba ay cumikaay la. xoola biteel yëpp booy yi dinañ ko sotteekoo. troisième combat wala quatrième combat. troisième combat booy wàq ndaw ak booy ngoom booy ngoom jël na ko booy wàq doon na ko bot ah ñoom ñaar daanoon doon nanu bu ma doon arbitre bi ah déret dañuy sifflé waat ñu bëre dañuy sifflé waat eh day da <laughs> eh man jaax gisa ah. waa njaax non moom daanu na non moom daanu na eh, amuñu luñ leen def tey. Eh, non non mais kii dafa daanu moom. man maay doomu Bawol waaw. Eh, doomu. Bawol. doomu Bawol. waaw. yéen ñaaree bëri. ñaar ñooy bëri maa bëree wala. maa ngi 10 000 problème Thiénaba Seck. yow Robo. ah Robo ngi père. alors yaakaar naa kii dama dama lay mboot ci force. waaw loolu ci kanam la. Eh, su su ma la eh, mbootee ci kanam la. sunu làmb dañu ñëwaat ci làmb. waaw yéen yemu leen rek ci bind. waaw mais da di dundal làmb. waaw dañuy dundal làmb parce que moo tax euh, en collaboration avec le promoteur Jax Production ñuy organiser première édition drapeau Baaba mal lu tax Baaba Maal parce que Baaba mal ambassadeur la si Sénégal. Baaba Maal ak. dande la ñoon fu mu ko yóbbu moo tax ñu bëgg ko euh, delloo njukkal tuddee ko drapeau le dimanche 9 avril fii si stade Iba Mar Diop mise bi nekk 2 millions. Ndeysaan Ada Fass Yéri 2 Ada Fass moo féete sa ndijoor Yéri 2 Ndeysaan Pa Yéri Jaxate lañ ko tuddee sëtam la bilaay sa maam moo ma dalal ba fii ci làmb ji Yéri Jaxate daf maa gis Yéri Jaxate Jacques Diène Alaaji Dambay Oh, góor gi jaw Moustapha Diaw ndeysaan oh ñooñu laa fi fekkoon na fi baax yooyu ma ñëw ñu ne ma yaay sunu doom yow la ñuy àndal woon la lu bari ci làmb. xam ga loolu dafa neex Siteu ak Zoss rek le 4 avril. ku fay oh! <laughs> Ada ah, ndaanaan la. waaye jël bi nu mu tudd. père Fass laa dëkk. dama lay laaj laa dëkk. bilaay Fass laa dëkk. bilaay walaay. maa ngi sant yàlla bu baax. waaw di sant sama sëriñ sama Kumba Fall. bilaay walaay. waaw waaw père Fass laa juróom Fass laa yoroo. bilaay walaay xale bu ndaw laa 97 laa judd. 97. Mor nam nan la. Alaaji Bekkaay maa ngi lay ziar. loo wax ci lambi tey. kontaan ci yow du suma lamb sa lamb la. liggéey bi fi am liggéey bi fi am lépp bàyyi naa la ak waa kër Cheikh na Cheikh Saad ndax lépp ginnaaw yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba yow la def nga li ci war publicité nga ko lépp li la ci war def nga ko ba yàlla def li maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm yaa ak tonton soo Gueye donc bés bi seen bés la. lan nag ci lamb. waa lamb di di remercier waat amateur yi parce que woote ñu fekk si la kenn mënul am lu dàq lool donc di santaat suma yaay. muy Aram Seck di santaat suma yaay Khady Seck di ñaanal suma mu nekk yàlla ko gënal fi mu jóge yàlla na suuf Touba sedd ci kawam mais mention spéciale à yow. yaa ngi doon entraîné. waaw waaw waaw maa ngi entraîné bu baax. waaw damaa doon entraîné bu baax. mais ñu gis si làmb te yow da bokk ci làmb. waaw xam nga dama toogoon deux ans yoo xam ne bëriwu ma ko doon defaru parce que dama doon dem xaw ma fu ma jëm léegi gis naa yoon bi maa ngi école de lutte El Hadj Dame Mbaye tey moo tax ma sol ci setam nii parce que ñoom bi combat bi taxawee ñoom ñoo ma doon jàppale di ma ñaanal ay Ablaye Mbaye di ma ñaanal ba tey yàlla jëlee leen fi moo tax ma defaral leen hommage bi def ñaari yaar de retour. nga ñëw bëre. non si gëj naa bëre nag parce que avril passé laa bëre ba avril bi ñu nekk nii. Ah waaw ba léegi a waaw gars yi nekk di fente rek. ba arbitre nga woon. léegi ñu lay gis si lamb ji nga boole football ak lamb. 1949 50 ba tey maa ngi seetaan lamb li ma xam ci lamb bari na. Ah? Cheikh Mbaba ba Mbaye Gueye Ndiaye. ba Abdou Njëmb ba Bekaay 2 ba Bekaay 3 ba Ama Jabu Mbeng ba ba ba ba Culiane xam naa fekk naa seen. Zazu Ndiaye. Zazu Ndiaye ko dégg fekk naa bërëm fekk naa ko ak Bori Patar ñun ñëpp ak Barabara ñun ñëpp fekk. mais popularité bi am ci mbër yi tey est ce na dégg. waaw bu njëkk amoon na a siiw ci jamono. Cheikh Baba mu siiw la woon Abdou Njëmb mbër mu siiw la woon Bekaay mu siiw Barabara mbër mu siiw la mais ñëpp bëri siiw la ñu woon waaw. Texas xamoon nga ko. waaw Texas xamoon naa ko kay. ñoom euh, Bosco. non Bosco Bosco mu ngi dëkkoon euh, rue 22 ma ma rue la dëkkoon moo daan baa ko sum kaañ sum kaañ golo wàcc seen morom yëga. mbokk yi ñu ngi ci cinquième combat bi Mor Cak Cak Mor Cak Cak jël na tànk ba daan na ko. et eh, daan na Kobzo Kobzo yow amoo 30 secondes. per man du ma mbëre per daaw quatre combats laa bëre victoire. ñaata daaw quatre combats laa bëre quatre victoire benn amu une minute. billahi comme nii rek. yow yaay Mor Cak Cak. ma Rambo Rambo. yow yaay Rambo. waaw mais pourquoi ñu bind comme. non combat bi jeudi laa ko jël bu weex am am bu verte bi. eh camion camion dóor na jël na dong bawal ku nekk ah camion daan na daan na oh daan waaw doole ja oh camion daan na waaja mbokk yaayam góor gi Diop Mamadou yëkkat saay Marème Sow sa yaay woo yaay ma ini dafa doomi gar mi yaa ngi ci yow mu di metti lool fari yoo naa Pambay Pambay la andi. Ah, waaw moom la andi. Baye Mood laa tudd. li boo ànd ak sa xarit borom jom. il faut nga bëggal ko mooy ndax mu mën a ñëw bëggal la moom it. doomi ba dañ ko am lu bees tax barki unité yàlla Mohamed so loolu dëgg la dama koo xam bu baax daa asma bu ko jàppee daa asma xam na baax lu nga wax soq suñ ko jàppee dina xam ne lépp dëgg la soq dugub taxul cere waaye mën na mooñ taxul cere buñ ko jàppee dañ koy wal ñun waaw ni Modou Lo Lac de Guiers combat bu doy waar la te Balla loolu nit ñi ñu ngi lay xaar lan nga gis. waaw gagaay combat boobu c'est un tacticien face à un technicien Lac de Guiers 2 c'est un tacticien yàkkamtiwul daraam dafa nekk un puncheur bu la piégé tendre la gerte pante bu la jàppee pour que s'efforcer ba échapper captivité bi day jafe quant à ñëpp xam na seen technicien ñu ngi fi daan ñëw daf leen daan avec la manière que le maire gagne. Bombardier mën na ko yëngal. ah mais si xam nga nag Eumeu Bombardier Bombardier il cent 150 kilos bu jàppante ne bu onkee ça lui cent 200 kilos kon fu mu deqal fu nga daan ko Eumeu Sène nag mu yàlla jël risque parce que on ne peut pas on ne peut pas prétendre champion sans prendre des risques champion yi ñu jël risque. champion ñoo war a ay risques. combat bi bu jëlul risque du dem. mais la force d'un champion c'est d'avoir accepté les difficultés mais être surtout dans les conditions de les maîtriser le jour ji la koy wane. mbokk yi boobu mooy sixième combat bi wala septième. Zarko 2 ak Medzo Medzo moo ngemboo ngemb bu waa ñuy waajal ñaan goo xam ne te ni nii ñu ngi koy jagleel Baba Touré le 15. avril stade Demba Diop lay doon waa jël na tànk ba jël na tànk ba tegal na ko chaise déedéet da koy tegal chaise da koy tegal chaise ah da ah ah ah ah ah ah est-ce que Medzo daanul Medzo daanul moo daan waa Medzo moo daan ah way da nga ko waroon a tegal chaise ko chaise mu daan la. waaye combat bi métti na trop ndax championnat tasel bëre kan la. daanaka daanaan la wooy maa ngi dool di sant ñëpp ñu ma jàppale waaw di sant samay mbokk baax nañ te jàpp xoola public ba la la lépp nga seen man lañu àndal parce que dama fee bëre ba nag sang def benn erreur bu ndaw topp xeex bi rek fàtte bëre te ñi maa ndax bëre parce que seen naaw damay mbapat di finalu ngal jël ñoo finalu adressé Senghor bi mooy sama cinq combats quatre victoire benn défaite waaw père maa ngi nii di la namm rek père waaw gis nga rek dimanche passé maa fi ñëwoon maag MC Gaz mais yàlla dafa def xama rek tombeek dese sëñ Cheikh bi di di ja di jaale ñëpp daal xama mais man instant bii nii dafa am booy nekk sama kanam si yaa ngi dégg. yow yaa daanu. maa am ndam père maa am ndam maa fi daan MC Gaz jël bu rëy. arbitre bi sifflé na boobu mooy septième combat 10 000 problème mil 000 problème attaqué na ko 10 000 problème attaqué eh 10 nan ko 10 000 combat bi jax na 10 000 problème rek. dix mille problème ak Pape dix mille problème ak Pape Bercy wër na ko ndombo dix wër na ko ndombo ko Pape bañ na Pape bañ na oh ah ah, ah ah ah waa lan la léegi lu arbitre bi wax lu arbitre bi wax lu arbitre bi wax ah waaw waaw da waŋeetu <laughs> eh waŋeetu la waŋeetu waŋeetu la sa koo waŋeetu eh da wangeetu. moom kenn mësul gis lii. mësuma koo wangeetu rek mu laal suuf ange ba laal suuf. ange ba la. daaduwul yow daaduwul. daaduwul mais père. daaduwul nan waxante dëgg na gaañ. lii daan. daaduwul d'accord leen. d'accord ñu lii duñu laaxi daanoo. mu ne def la door coup de ange. ah non non non. dara laal xoolal fii. est-ce que lii du dama sonn per dama sonn si lamb ji te xam nga rek demeewul noonu quoi Pape Demba dafa mën a bëre xam nga yow est-ce daan nga waaj mais per man bu ma daan woon du ma jox victoire li nga def nu mu tudd ah mais man dama dama dama mën dama mën a bëre per mais ay ay gàllankoor du ma ko wax solo solo de gàllankoor mënut ñàkk ci lamb barki alxuraan karim sa doom Modou Mbaye xam na ma bu baax dalal na ma te kii na ma fii keroog ba ma nonguloo di daan yaa ma dégg moom menn moom moo daan jël wu leer mais des yëpp samay samay combat woon naa ko yàq dii mille problème instant yi il a cent quatre vingt dix huit mille neuf cent quatre vingt dix quinze problème en ah, paire. waa picc yi ñu ngi dee rek xoolal picc yëpp dee nañu ñoom dañuy sànni picc yi ba pare joggi leen xoolal picc yi waa kii lu muy def ni yow picc yi mënatunoo naaw danoo sonn. xoolal picc yi. Eh, yéen ay eh, li ngeen di def nag la ñu a ngi nii raam daan raam ba léegi ngi raam wala. maa ngi raam ba léegi. mais père dafa jot dama war sa gàtt ñaar laa amagum dama sama yaram dafa tàng gars yi ne nañ doy na. yow saison bi ñaata combat nga. deux grands combats laa bëreegum maa ngi xal booy. ndeysaan nekku réel ndeysaan ñaar ñoo xam ne heure bi waroon nañ leen a fekk feneen ci lam waaye lam ba tërë di nekko réel nekko réel dox jëm ci Fallaye nekko réel la Nécorel jël na Fallaye am na lu muy waaj Nécorel lu muy waaj Nécorel ak Fallaye Nécorel Nécorel Nécorel daan de Nécorel daan na de Nécorel daan na waaw Nécorel bu daanoo koy jël si gaaw non déggoo de man ku ma daal heure nga ma daanee ku ma daal rek heure nga ma daanee daan ñaari heure yu ma defoon mais ñii xam nga ne ñii war ma fa nekk sax di toll ak ñii war naa avancé bi bu yàgg te per xam nga ma per xam nga ma bu baax mais lan moo indi jafe-jafe yi la du dara nag xëy na yàllaa ko dogal rek lu war a ñëw day ñëw mais comme que ci yàlla ñu yàlla may rek ñu dem ci kanam combat bi dafa seen sonn quoi wóor na yàlla du man du man ah, dafa yàgg te ñee lay bëral ñee ñee si kaw ñee lay bëral ñee waaw moom dugub gi mu yore nag mais mbëri duñ ma jox avance mu daw dañ ma jox daw ba dañ ma mais mbëri mbëri ñu ma jox nga daw wër na suñu tubaab ñëpp ci bëre waaw xam nga mais dañ jël combat bi quoi wër na suñu tubaab waaye xam nga rek booy ñoom xool ma kii jox ma kii ba ngay wax rek marto la laaj ay ñu ñaan la sok Mor Ndiaye doomi Maas Ndiaye Maas Ndiaye Goro Thion Seck ndeysaan arbitre bi sifflé na Sokh moo nekk à droite Pambaay moo nekk à gauche ñoom ñaar ñi ngi léewtoo Sokh dóor na jàpp na Sokh dóor na jàpp na sol na Sokh sol na Pambaay def na li mu mën de ngeñ na ko xañ na Sokh mu jàpp Pambaay Pambaay ban prise nga bëgg a def foofu Sokh téere boo jàpp mu topp la maanaam mbër yi am na ci ñoo xam ne téere yi nii takk dañ koy teg seen kaw rek Sokh Sokh ak Pambaay Pambaay Pambaay waaw sifflé waat na jeex na kon jeex na yaa ngi gisante ci seen biir jëkkati loxo soog loolu la bi def jaaxal na ma. cinq avertissement la techniquement ñi ko indi loolu lañ ko gëmloo te man li ma waxoon laay waxaat rek xale du juum ñaar yoon ndax su ma juumee ñaar yoon duñ ma ko baal. mu jooñ da nga mujj ma woo jël benn risque. dama bëre ba sonn nanguwul bëre. non moom bëre na waaw. non bërewul. bërewul man maay def muy dindi te xale bu ndaw sax booy bëreeg moom di def muy dindi xale bu ndaw sax booy bëreeg moom muy ngay def muy dindi boo ci daanoo cuune ngay nekk. te li nekk sama ginnaaw dafa bëri. noonu la parce que dama am ci lu ma jugee ñëw ñu daan ma may dégg lu nekk ma waat liggéeyuwaat ñëwaat damay ñëw teg lépp ci yoon. non ñoom ñoo ko jàppoon man Pape xam naa ko bu baax lu mu dee dee rawee na ma ci làmb cinq juróomi at te àdduna yëpp xam nañ ni mun na bëre àdduna yëpp xam nañ ni ragaluma téléwuma bëre mais combat nii la munoon demee.